ayca di leen jaajëfal bu baax a baax di am contentement ak mbégte jëna yu ngeen chaque jour comme ni ñu koy defee ah dox taxul làmb dañuy dem daal di sa xool waxtaan ak champion bu ne fekk ko ci goxam tey nag beneen champion laa dalal waaye beneen daanaan nee naa leen jóge na ci combat daal di dem ñëwaat ba mu ñëwee na suñu gaal foofu ñu toog daal di waxtaan ak moom toj yax bi kama dalal nag mooy Ndongo Lo borom New York borom America nga ne. United States ayca nuyu naa la bàyyi nga nuyu internet yi. ginnaaw ma sant yàlla juri si yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur maa ngi waa Grand di delluwaat di nuyu waa Grand di delluwaat waa Grand Médine mhm. di nuyu waa Parcelles di nuyu waa Amérique bu ma jóge waa Washington waa Chicago waa Michigan waa 116 maa ngi nuyu baax a baax ak waa Detroit mhm. kii nii nga xam ne mooy nangu du ma ko du ma waxtaan ak moom te du ma waxtaan moom ci combat bi mu jógee diggante moom si Tidiane Niang bi nga lajjee ci combat bi noo ko dundee waaw ñun moom dañuy sant rek wax dëgg yàlla parce que combat bi nekkoon na combat bu ñu soxloon wax dëgg yàlla nekkoon na combat te bu ñu intéressé woon mm-hmm. man nag yàlla mooy maye. Mm-hmm. te yàlla maam lu gën ci jaam rek lay def. Mm-hmm. ñooñu nag daf li ñu war a def yàlla wàcc ay dogalam. te di ko sant yàlla bu baax. di ko sant yàlla bu baax a baax xam ne yàlla mooy dogal ñu gis nga xam ne ni mooy Ndongo Lo jóge ci défaite quelque temps yàggul dara ñu dégg ne Ndongo Lo dem na la moo waral tukki gars yi sax ñu may wax naa ma lu tax dafa soote balaa ngay dem mais xam lu jot yomb. Mm-hmm. ba pare si combat Cheikh Tidiane naa mm-hmm. maa dem wàcc ma tukki bi. Mm-hmm. amaan nag yàlla moo dogal ni tànk bëree ko pare doo dem. waaw mais dem bi nag euh, nekkuluñ bett daal. nekkuluñ bett waaw. dem naa fa wax dëgg yàlla mais nekkuluñ bett daal. lu kenn xaarut am defet tukki dem États-Unis est-ce que yomboon na la. yombul woon nag. ndax tukki yombul. même boo dem fii Kaolack sax mhm. yombul. Mhm. mais dañu sant rek yàlla def na si ndox bu sedd daal. tey mhm. yàlla. mu daal di dugg fi nga xamante ne nii mooy New York di États-Unis dëkk bu neex ba ay ma fa tegee tànk <laughs> maa koy raw mu ñëw benn indi benn état de forme explosif ba nga demee la nga doon liggéey. waaw wax dëgg yàlla maa ngi ci nuyuwaale au passage suma xarit Pape Mor Lo. di nuyu taaloo bi nga xam ne nag foo mooy cëpp New York moo jël si aéroport. yóbbu ma këram dèjà dalal ma jàmm daal dalal ma baax. Mhm. ba fa jógee ma ne si Pape Mor Lo. Mhm. Pape Mor ma jëlal. Hmm? ma entraîné mais dama feebaroon nag yóbbaale ko Amérique te xaw ma ko woon. Mhm. parce que ma dañu ay combat mujj yëpp dama feebaroon. feeru métti sax. yàlla dogal ni ba Pape Mor Lo yóbboo si salle bi ñu ne kii dafa ñëw pour entraîner. gars xool ma ne ma kii daa feebar. lu mu bëgg tak yaram bi yaram bi attanu ko ko. Mhm. il faut ñu faj ko ba pare. Mhm. wax dëgg yàlla Pamaro yàq sa xaalis yu bëri. Mhm. te dinaa hôpital presque ay 3 semaines. doo commencé entraîner. ban feebar la woon noonu. waaw feebar bu yéeme la nag bu garaaw sax. waruñu ko mën a xam comme Sénégalais gis ñu nga ne ba réewum tubaab yi sax mu ngi woon ci man lu gën a pire loolu. ne saatik mën na ma dal. waaw mais sant yàlla nag ba ba yàlla saafara loolu. Mhm. entraînement lu metti mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. ak samay ak samay coach daal. ñu dégg nga xam ne mooy Ndongo Lo mu ngi États-Unis mu ngi entraîné waaye ñi naan dafa dem pour utum xaalis bala ci woon. xam nga ku ku xaalis moom du def Amérique 4 mois. wax dëgg yàlla. man na xaalis taxuma woon jóg. man sama yaram. muy ëppoon solo ko xaay ay xaalis. entraîné ñu naa fa di xaar. ñaar mhm. séance d'entraînement nga doon def parce gis nañ ba nga ñëwee moom xanaa burger yi ñoo la jàpp. non <laughs> xam nga tey jii maanaam bu la yàlla defee nga nekk xale. Mhm. nekk sa réew di liggéey. Mhm. am yu bëri yi nga xamante ji da lay dal nga koy maîtriser. boo demee États-Unis amaan yu bëri mun na la wàcc daal. Ah, yu bëri mun na la wàcc. te maanaam liggéey moo ñu taxoon laa doon def. Mhm. bu ma wéree. Mhm. quatre séances laa doon def. quatre séances la ba suñu coach yu ma yoroon sax. allez mhm. naan non kii li ma entraîné li li ma entraîné baaxul. ndax xam tax man chaque instant dama ñëw si salle bi. chaque instant dama ñëw si salle bi. mais am na ay médicaments yi nga xam tey tamit doon nañu ma ko jox a moom doon récupérer. loolu la quoi. yan entraînement ma manqué woon. lan doon liggéey États-Unis lan moo la manqué woon. waaw lu ma manqué woon bëri na parce que nit du mat. Mhm. ba léegi matuñu sax. yow lan nga jàpp ne ba nga demee États-Unis moom nga manqué woon dooleeku na ci yow. waaw li ngeen gis si man rek ma lu ma lu bi. Mhm. li ngeen gisoon si man ba ma nekk fii ak bi ma gisee nii looloo man bi ma la gisee parce ba ma la fekkee sa koñ ngay waajal combat bi bi ma la gisaatee bi nga ñëwee. Mhm. dafa nekk ñaar ci lan nga nekk fu ne nii. waaw saa yi moom wax dëgg yàlla maa ngi sama régime alimentaire. Mhm. di respecté lu ñu ma wax rek. Mhm. waaw ci laa nekk nii. pare nga pour delluwaat. waaw sans dépend nag. sans dépend ci climat bi rek. non non climat tey dafa sedd suba day tàng ci la la dépendre demaat bi amaat combat la wala da ngay bëgg da nga demaat yokkaat wala. damaa ñëw pour bëri si. balaa may dugg Sénégal nañ des tuuti États-Unis mhm. ñi dégg nga xam ne nii mooy moo gét ñu ne Ndongo Lo lañ ko combat MMA loolu fan ngeen ci fooy nañ ma xaalis yu bëri mais million dafa am lu mu àndal. nit ki waroo gis ay millions yu bëri rek. nga jël téye. déedéet million daal lu mu àndal. dëgg la ma ci xaalis. mais xaalis tiitalu mu daal. Goroy wax lan moo waral loolu lan moo waral combat MMA àncul. sans dépense yi moom. ñun tooguñoo moom te tungu ne du teew. ñu nata ci ëkk. mën na taxaw sax tey sans dépend rek. lan moo waral taxawut ba instant bii ñuy ah, wax. du ci man. Mhm. ci moom la amaana ci moom la. ci moom la. ak ci mo kilifa bi nga xam ne mooy Pape Mor Lo. daam contrat yoo leen déggul wala. waaw dafa am ay affaire yu sew yu ci nekk rek. Mhm. ci diggante moom ak Pape Mor xam naa mhm. ne kon maanaam bu ñu déggoo pour delluwaat euh, MMA mm. daal di koy. bëri déggoo ma dellu suba. tooñu ma. Bombardier ñu ko dóor mu xam. Euh, rëg rëg. kasaalikal. kóol bu sax moom waxaale ma ko. pare nga pour dëkk loolu noonu. waaw ñooñu yàgg nañ fa dem di am ndam. Mhm. comprendre nga. Mhm. amaan lépp looy def rek. Mhm. jàpp ne bis yi ñëw. di nga si échoué. mais boo échoué gëmal ne daan nga gagné. est-ce que yaa ngi doon jàng MMA ba nga nekkee foofu. yeah maa jàng bu baax a baax. bu baax a baax sax. ak benn lutte sax. ak beneen lutte ban lutte la. ñoom bi ñuy def. pare naa pratiquer beneen lutte. waaw bokk na samay passion isantoon bokk na si mu si doog bokk na. boo ko mm-hmm. demee. Mm-hmm. ay jax bomba ji dañ doon tooñ noonu rek de <laughs> suñu gaal nga doon représenté dama kaa bëggoon xaw a a yóbbu fit bi noonu. Ah, mais gaynde la daal dina may lu am ci noonu dañuy fii ci suñu gaal. Mm-hmm. ñu ngi lay waxaaleel combat wala. waaw ñu ngi lay wax combat nag depuis États-Unis Jos ak ñeneen ak ñeneen nga xam te ji ñu ci làmb ji. mais da ngaa daanu sa tur bi gën a yéeg ma loolu moo ma jaaxal. waaw loolu yàlla moo koy def. dama jóge ci kalaaf maa ngi jógul sax dama jóge ci kalaaf. père Bakaye may fekk ma saat. Mhm. moom dama ndiroog Tafa Gueye. Mhm. daanu mel ni moo daan. man mhm. man loolu yàlla moo ko def ci doomu aadama. lu ci mën nag nekkul sama njàmbaarte. nekkul sama mën-mën. ndax li ma mën am na ñu ma ko dàq. ne la ko. sama maam yàlla maam yàlla si teg loxo daal. <laughs> Zos Alioune Seye numéro 2 la bëreel ñii lañ la koy jox pare nga pour bëri ak Zos. man moom maa si pour maa fi pour làmb ji. Zoss dafa jommal xale yi de. waaw xale yi xale yi ak ndongo du bokkul. ah ndongo du xale. non xale laa si jëmm rek waaw xale laa si jëmb waaw kañ kañ waxtaan deux minutes ci Zoss. Mhm. est-ce que Ndongo Lo bëreewul ki nga xam te ni mooy poulain wu Zoss Cheikh Tidiane Niang mu daan ko ñu bëgg la Zoss jox jox Zoss nga jël ko est-ce que loolu xel nangu na ko. làmb lu ne am na fi. lu mm-hmm. ne am na ci làmb waaw lu ne am na ci làmb waaw lu de barki yàlla kon nag nga def booy ñaay daal làmb lu <laughs> ne am na ci làmb <laughs> à part ki nga xam te ne nii mooy sos ban adversaire nga gis war a bëre ak moom fu mu ne nii waaw man moom wax dëgg yàlla amu habitude sax di lim ay adversaire mm-hmm. mais kon ma wax promoteur bi rek mm-hmm. damoon bëreek samay morom samay samay samay mag laa nu bëreel léegi pare naa pour bëreek samay maas xëy maas nga pare bëre. waaw. <laughs> nga nongul dafa jóge États-Unis gën a taxaw gën a fas kanamam fu ne nii du ma wax sax doo dos ki nga xam ne dafa daan barki démb benn xale la daan muy Tidiane Faye bu Lamsaar pare nga pour bëre ak moom. Tidiane Faye bu Lamsaar samay maas laa bëgg bëreel mais dos du sa maas dos moom Tidiane Faye la woon du sa maas tamit. waaw mu ngi bëri gone yi. ah yow mais Tidiane Faye bëri naa gone. non Alioune la daan barki démb jaay le Lac Junior moom mag ci làmb. moo mag ci làmb. Mm-hmm. yow kan nga maasa ci làmb léegi. xam ngeen ko. kan man 2013 laa laa dugg ci làmb. waaw mm-hmm. samay maas nag moom bu ñëwee mun naa bëre ak ñoom waaw. ñu gis li nga xam ne mooy phénomène bi am ci mm-hmm. su mbër bi daanoo ay fantan yàq mbër bi daanee ay fantan yàq yow en tant que porteur de voix nan nga gisee loolu. teguma. mbër bi bu daanee ay supporters yàq bu daanoo ay supporters yàq. waaw loolu moom maanaam violence maanaam baaxul sax si réew waxuma ci làmb violence baaxul si dara xam nga nit ki moom lépp looy def rek ak lépp looy dugg rek foog nga mucc si violence maanaam yàlla na yàlla musal si ay si ay musiba parce que boo xoolee mbër miy bëre moom bëggul sax ñu koy yàqal bisam mais parfois bëgg bu ëpp bëgg bu ëpp mooy defal loolu ay doomu aadama mais ñu xam ne tamit làmb mooy suñu cosaan buñ ko yàqee yàq suñu culture nekkul Sénégal kese la yam partout dans le monde ñëpp ko suivre amaana waruñu gis li nga xamante ji maanaam lu rafet la ci yi di ëllëg ñoome jóge seen réew ñëw seen réew dafa dugal seen xaalis loolu la te loolu nag ñii di waa CNG Bira Sène daal di koy naan ko kuréel boobu lam xam ne mooy yàq bu amat te ndodd mbër bi lay dal yow en tant promoteur moom. dama jàpp ni day fay frais d'organisation day fay CNG policiers yi ak leen ak leneen amaane bu yàqoo loolu ñu fay euh, ménager yi sax euh, CNG bi mënu ci defar stade bi mais comme lépp lu yàqu rek si mbëray dal rek. maanaam ci reliquat nangu lu ah, loolu loolu dina doy waar dina merci mbëri de waaw kon supporter yi kon nañ jàppale seen mbër rek. waaw parce que loolu dafa metti tamit des fois ñu dagg la pare plus nga defaraat day metti daal waaw maanaam ñu bañ di yàq daal suñu bañ di defar. lu récent li ñu mhm. gis làmb ji mhm. yi waaw loolu moom war ci si mën a jàngataat daal parce que ku préparé combat ay 6 mois presque ay 2 ans nga ñëw avertissement di ko di ko di ko jeexal moom loolu moom war nañ ci mën a wax bu baax a baax a baax a baax. war def ay jàngat xool ñu ko rafetalee wala làmb di gën a yàqu. mu ngi dugg biir lu ñuy yokk lu làmb moo gën làmb te xamuñu ko suñu cosaan da ko poosoo xam ma def ma def maanaam yëfu mbër. Ah, def yëfu mbër loolu moo gën làmb lay dafa professionnel trop. Ah, te loolu war na si mën am tuddi wàññeeku wàññeeku daal wax dëgg yàlla mbëru dof dof de un fou ne gère pas des million dof du gérer ay millions comme maam nit bu ñu yoree liggéey nañu bàyyi liggéey suñu liggéey bu jeexee ñoo xam ne jeex na noonu la quoi mais tere bi dafa bëri trop day dem sax ba après si si biir làmb sax day déplace day déstabiliser mbëri yi loolu baaxul hmm, nañu bàyyi ñu làmb suñu làmb kon mu fi amoon démb ak barki démb waaw manaam làmb lu mu amoon nañ ko delloo si daal waaw lu si bees ñu génnee ko xool ba xam parce que boo xoolee lu si bees yëpp après làmb day yàqu rek boo xoolee avant làmb daawul yàqu lu bëri mm. mais bañ créé lu bees bële si la làmb di commencé di yàqu nii loolu la quoi. ayca mu ngi noonu nag ki ko ngànk nag di ko ñu bu baax a baax di ko naan ko nga déglu gars yi am na loo xam te ni làmb la comme ni nga waxee aada ak cosaan la. Mm-hmm. ngay bëri seeti jaan indi cosaan boo xam te ni bu ko mbër benn ko lan moo waral loolu loolu moom foog ma foog ma a génne woon man damay làmb man làmbantu ma damay làmb nit ki defal li nga war a def bu yàlla ñi ngi xam ne yàlla ñëw na man damay làmb ba supporter bi amateur bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew sax suñu gisee làmb ñi nga xam ne kii def ma lu ko war ma yàlla moo ñëw ak ay mbiram suma daanu ñu ne cam. oo rek ngay dégg oo te képp kuy dégg oo rek xam ne jàmbaar nga xam ne cam moo bon. ambiance bi. man baaxaguma sax déedéet billaahi baaxaguma wóor na yàlla baaxaguma de waaw su ma yàlla su ma yàlla mayatee bés nga xam noonu rek mu ngi doog a ayca na nga amaat bés mu gaaw gaaw waaye doon sama papa de bu ma benn problème ak yow <laughs> fi noonu def combat bi am ci le premier janvier diggante Balla Gaye ak Bombardier loolu boobu maanaam yal na ko yàlla yegaleeg jàmm ak salaam rek xam ba lépp si promoteur bi séntu amateur yi séntu ko si àdduna bi sedd ko si yàlla ko yàlla mottali si ndoxu sedd guy ku yàlla may ndam ñoo xam ne kii la yàlla may ndam. waa sama dernier mot maanaam du si di di nuyuwaat sama papa rek di nuyuwaat suma yaay di nuyu waa kër gi bu baax a baax su ma limee du ma juum mais dama dul matal parce que doomu aadama matul mais du ñàkk nag ma lim kenn suma xarit sama doom ndey sama grand frère Djigo di jël nuyoo bi takku ci loxoom mu jotale ko waa kër gi yëpp di nuyu waa Amérique bu baax a baax a baax di nuyu grand taalaloo di nuyu Cheikh Thiat Aw Guèye Seri Mbaye di nuyu Mame Thier di nuyu sama papa bi nekk si États-Unis encore une fois Pape Mor ma jàppale. dafa ma jàppale bu baax a baax billaahi jàppale ba fu jàppale yam bay na waaram sama diggante man ak moom amaana bu nekkoon moom dina ñaaw Amérique waa di nag waa Grand Médine di nuyuwaat waa Grand Médine bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama gars yi xam ne ñoom la ma yàlla booleel. muy neex muy metti ñoo ngi man yàlla yàlla fay seen xol xam nga di nuy Pape Gueye bu baax a baax tamit di ko di ko remercier gis naa seen muy def naaj seen trop di nuyu kullu mbër bu nekk Grand Médine mag la nuyu bu baax a baax ak kullu mbër bu nekk di 18 maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa sax xam-xam bu baax a baax a baax a baax a baax waaw fii nag moom Pamoro ma fi jaar. Pape Mor Lo moo jaar fii. Pape Mor moom moo jaar fii <laughs> moom moo jaar fii kontaan naa bu baax si moom di kontaan si yow di kontaan si waa Leewtoo TV bu baax a baax. parce que gis naa seen liggéey rafet na trop wax dëgg yàlla seen direct yi lépp maa ngi koy suivre naa seen trop yàlla na yàlla jàppale ba léegi lépp lu ngeen bëgg seen site bi rek yàlla may leen ko. te bu leen bàyyi nit ki moom boo nekkee si dara. di nga dégg lu ne gis lu nekk mais bul bàyyi jàpp leen te boo bàyyi te yéenante jàmm yàlla def jàmm. noonu laay def dina ñàbb tëye lu waaye wax dama koy jaarale fële xam ne nekk nekk sa ginnaaw rek ñooy wax ñu nekk sa kanam duñ mës a wax parce sa jot yaa ngi dégg ete gars yi damay di bu baax a baax ma sant nag gërëm nga xam ne sama équipe bi Fama Dramé kenn du yow big naa ci bu baax a baax waaye noonu laay jaar dem ba géej waaye fekk fa soxna Diagne ñu naa ko loota rax ko jaar a Diagne di ko souhaité un happy birthday naan ko dundoo li nga sa xool yaa ko xam su ma jógee ci damay dugg ba suñu biir fekk sama yaay booy ma maman Ardodé ami Kole Ndaw ñu ko tante ah yaayu ji dama koy bëggee bu baax a baax ñaanal ko jàmm gudd fan sutura ànd ak allah li mu bëgg ci mm-hmm. daal di koy am muur may la jàmm ndax sonal na lool lool lool lool ay ca dundal chéri Cheikh Mbaye Kébé di madame Kébé dama koy bëggee bu baax a baax waaye 100 pour cent assurance kenn du yow loob ci yow loob ci yow loob ci yow ay ca beneen yoon